dend ak jullikaayu it bi cheikh abdul ahad mbàkke yàlla suñ boroom yokk ay leeram nekkat ñetteelu xalifa sëriñ tuuba xaadim rasul moo ko sancoon ci atum 1977 ngir wormaal alxuraan yaatal mbindum sëriñ tuuba dajale ko waaye dooleel xam-xam ci dëkk bu sell bi de cheikh abdul ahad mbàkke ca yitte ju kowe ja gannaaw ba mu amee yéene àggale benn ci naali sëriñ tubaa cheikhul xadim ci dëkk mbile ci la daldi jublu ci liggéeyub daaray kamil la mu jëkk a def gannaaw ba mu ca diisoog njabootuk sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim gi mu fi nekkandooloon dafa daldi laaj ñenn ci ñi nga xam ne nii seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum bibliothèque ci lañu daldi tàmbali liggéeyab daaray kamil ci atum 1975 ba 77 mu daldi àgg ci at moomu sax ci leen ko amal ubbite gi di bis bu màgg bis boo xam ne nii taarix dootu ko fàtte bisub daloo ak ubbiteeg daaray kaamil ay waroomi xam-xam yu ràññeeku bàyyeekoo nañ ci ay réew yu fasantiku ba bitim réew ngir ñëw nag teewe ko nguurug senegal ca baawoon ci njiitu président Senghor ñoom itam seen teewaay ràññeeku woon na lool gannaaw tabaxub daaray kaamil ci lañu daal nag jublu ci saytu ak toppatoo téere yi nga xam ne nii ñoo fi féete fekkoon na sax Cheikh Abdoul Ahad Mbacke fàgg woon mbooleem ay jumtukaay yoo xam ne nii dafa jëm ci wàllum bibliothèque bokk na ci jumtukaay yooyu machine yi nga xam ne nii dañ ko doon moole lenn ci mbindum sëriñ bi liggéey bu am solo boobu Cheikh Abdoul Ahad dafa dajale woon ñenn ñi taalibe yi nga xam ne nii seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu mooli téere ñu daal di koy féetewoo ci ak saytoom ak ndigalam amal nañ ko ci anam yu mucc ayib gannaaw liggéey bu am solo boobu nga xam ne ni ñeel yenn ci mbindum sëriñ bi ñu moolee ko fii ci daaray kaamil ci lañu daldi nag mbooleem téere yi nga xam ne ni ñoo féete fii ci daaray kaamil dañ ko daldi séddale ci ay saal yu fasantikoo bokk na ci nag saal bu ca jëkk muy saal numéro un ñu jagleel ko alxuraanul karim mbooleem kaamil yi nga xam ne ni njabootuk sëriñ Tuubaa xaadim rasul ñoo ko bind ak yenn ci taalibe yi fii la féete fii ci saal numéro bërëb bu di bërëb bu fii nag yenn ci jumtukaayu Serigne Touba Cheikhul yi mu daan jëfandikoo fii leen ko denc ngir nag aar ndono loolu wakar ko mbooleem band yi nga xam ne nii ñenn ci mag ñi ñu ngi ko doon jàng fii da ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dajale. salle numéro 2 bi di ñaareelu saar bi ba tey danañ fa fekk mbindum sëriñ Touba Cheikhul Khadim waaye fii nag li fi ëpp diiwaani xasida yi nga xam ne nii sëriñ bi moo ko bind ñoo fi féete. bokk na ci diiwaan yooyee diiwaanu tawxid diiwaanu amdaax diiwaanu sirkul jawaarix diiwaanu salaatu ala nabi diiwaanu fulku masxoon diiwaanu quraaniya ak yeneen yoo xam ne ni seen ab lim bëri na lool gannaaw diiwaan yi nga xam ne ñoo féete fii ci salle bi am na itam ay témoignage maanaam ay seede yoo xam ne nii ñenn ci walla rëy sëriñ bi ña ca gën a fës di naar yi def nañ ko ñeel sëriñ Tuubaa xaadim rasul fi ci ñetteelu sal bi mbooleem téere xam-xam yi ñeel islaam te jóge bitim réew fii leen ko dajale téere yooyu nag ñu ngi bàyyeekoo ci dëkk yu mel ni dëkki naar yi Cheikh Abdul Ahad Mbàkke dafa wutan ak kuréel goo xam ne nii ay woroomi xam-xam rekk ñoo ko séq jox leen digal ñu dem bitim réew saytu ji téere yooyu indi ko fii bokk na ci téere yooyu nag lu ci mel ni éducation religieuse histoire culture générale ak mbooleem science ci aju ci islam loolu tax na nag mbooleem xam-xam yooyu nga xam ne nii dañ ko daan jëggaani bitim réew rawatina ci réewi naar yi am na fii ci Touba ci daar ay Kamil gannaaw ñetti saal yooyu nga xam ne nii foofu lañu def téere yi am na benn saal numéro 4 muy salle de lecture fii nag ñi nga xam ne nii dañuy sàkku xam-xam wala sax ñuy gëstu fii lañuy ñëw ñoom nag ñu ngi fasantikoo ci ay élèves wala ay étudiants danañ bàyyi ko fu ne ci réew mi wala bitim réew ñoo fii salle bi nag dañ ko defar ba mucc ayib méngale ko ak jamono def ci li nga xam ne nii moo di médiathèque médiathèque bi nag bokk na ci li tax ñu def ko fii ci daaray kaamil mboolem mbindum Serigne Touba Cheikhul Khadim mi nga xam ne nii am na fii dañ ko daal di numériser dugal ko ci machine yi loolu nag dina tax ñu mën a ràññee mbindum sëriñ bi ak yeneen mbind yi nga xam ne nii léeg-léeg ñu koy askaneele sëriñ bi ba koy siiwal te bokku ci. ba tey bokk na ci salle de bi ak médiathèque bi nga xam ne nii nekk na fii. ngir méngale ko ak jamono tax na nag mbooleem lu jëm ci ay document te ñiy sàkku xam-xam wala di ko gëstu di ko itewoo def nañ ko son wala vidéo wala image gannaaw ñeenti bërëb yooyu am na itam beneen salle boo xam ne nii ñu ngi ko jagleel exposition ci bis yi nga xam ne ni dañuy ñaanal ak fàttaliku njabootuk Serigne Touba Cheikhul Khadim wala sax yenn màggal yi aju ci yoon wi bis yooyu nag dañuy amal ay exposition yu am solo ci salle bile. ngir na xamale mbokki juddit ak taalibe yi ñëw taarixu bis yi wala sax ñi ko waral daaray kaamil di këru xam-xam goo xam ne nii sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mu ngi ko sanc ci atum 1977 da ko daal di teg ci yoxooy Alioune Ndao moom moo koy saytu atum 1982 ba 90 ci la ko sëriñ El Hadji Mbàkke Ibra Dia di saytu ba atum 2004 sëriñ Saaliwu Mbàkke yàlla na suñu borom yokk ay leeram teg ko ci yoxooy sëriñ Moustapha Diatara mu koy saytu saytu gu mucc ayib ak mboolem ñi mu ko àndal ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo ci ay bërëb yu fasantikoo moo xam muy ci réew mi wala bitim réew ñëw fii ci daaray kaamil di ziyaar wala sax ñuy gëstu ñoom kat bu ñëwee am na fi secrétariat boo xam ne nii moo leen di dalal gannaaw dalal gi ak tatagal gi dinañ leen gindi tegtal leen taxaw ci seeni aajo ba mu mat sëkk secrétariat bi nekk fii ci daaray kaamil seen liggéey yemul ci lii am na fi ay guide yoo xam ne nii ñenn ci doomu aadama yi bàyyee ko bitim réew ñëw di nemmeeku bërëb bi ñuy gëstu sax walla ñuy jàng si ñoom ñi nag dégg nañ ay kàllaama yu fasantikoo ba képp ku ñëw rek ñu mën laa gindi tegtal la ba sa aajo faju fii ci daaray kaamil daaray kaamil di këru xam-xam waaye itam di bërëb bu sell ndax xabrub cheikh abdul ahad mbàkke mi nga xam ne moo ko tabax mu ngi nekk fii ci daaray kaamil lii nag tax na ñi nga xam ne ñoo koy saytu ci njiitu sëriñ moustapha jatara duñ daj mukk di fàttali mboolem ku fi ñëw nga sàmmoonte ak warma ak teggin yi nga xam ne nii daaray kaamil laaj na ko wàllum kaaraange mat na sëkk fi ci daaray kaamil def nañ fi sax ay jumtukaay yoo xam ne ni dañ ko méngaleeg jamono ba tax fépp fu waay mën a nekk am na ñoo xam ne nii ñu ngi lay bàyyi xel lu jëm ci wàllum saytu bërëb bii di daaray kaamil gannaaw administration bu nos gu bu fasanti ko ci ay wànqaas yi fi am mbooleem lu fi jëm ci ab liggéey taalibey Serigne Touba Cheikhul Khadim mi rek ñoo ko fi amal ñii nag ñu ngi fasantikoo ci ay mbooloo wala ay daayira yoo xam ne nii seen yitte mooy taxawu téere yi di ko fomp di seetal bërëb bi am na ñoo xam ne nii lenn rek mooy seen yitte lépp lu jëm ci wàllu machine yi moo xam ordinateur wala lu ca aju ñoom ñoo koy toppatoo saa su nekk fii ci daaray kaamil am na yeneen mbokki taalibe yoo xam ne nii ñu ngi fasantikoo ci ay kuréel wala sax ci ay daayira kem seenub liggéey ba nu man lu ci daaray kaamil laaj danañ ko taxawu ba mu mat sëkk daaray kaamil di këru xam-xam ngir dundal ko ci anam yépp tax na biir weeru koor gi wala njaalbeenu safar gi dinañ fi amal ay waxtaan yu am solo ci teewaayu woroomi xam-xam yu ràññeeku daaray kaamil di këru xam-xam seex abdul ahad mbakki tabaxoon ko ci atum 1977 booba ak léegi doon ñeent fukki at ak ñeent ay njariñam nag jamono yi law na ba wër àdduna wërngal kàpp daaray kaamil bokk ci bërébu Cheikhul Xadim yi waaye bokk nag itam ci ndono yoonu murit loolu tax na nag képp koo xam ne nii yaa fi toog jataayub Serigne Touba Cheikhul Xadim yaa koy saytu yaa joxe ndigal ci lépp loo xam ne nii ma ngi fay am loolu tax na nag mboolem ko fi nekk xalif général de mourides lépp lu daaray kaamil laaj taxaw nga ci ba mat sëkk ba ci cheikh mouhamadul muntaxa mi fi nekk xalif général des mourides na fi yàgg loolu te daaray kaamil nekk këru xam-xam waaye di bërëb bu sell Cheikh Abdou Lahad Mbacké tabaxoon ko ngir àggale benn ci naali Serigne Touba Cheikhul Khadim ci dëkkam bu sell bile ngir nag yaatal liggéeyub Serigne Touba ak mbindam ba mu daj àdduna wërngal kàpp tax na nag ñi nga xam ne ni ñoo saytu daaray kaamil ci ndigalul xalif général des Mourides ci njiitu ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha Diatara ñu ngi ubbi seeni wunt di tàllal seeni yoxo képp koo xam ne ni sa itte mooy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ci xam-xam sa kem kattan bokkoon na ci nag jamono yi di daaray kaamil gën a ittewoo muy lenn ci téere sëriñ bi ñu firi ko ci ay kàllaama yu wute ngir mu mën a yaatu daj àdduna ba ku nekk mën ci jëriñu daaray kaamil di bërëb bu tedd bërëb bu sell boo xam ne nii mën nañu ne ci naali sëriñ tubaa cheikhul xadim yi la bokkoon cheikh abdul ahad mbàkke taxawu ko ba def ko fii ci dëkkam bu sell bile lii nag di ab liggéey boo xam ne ni ñu ngi leen ko doon gaaral ngir xamale leen ak bërëb bu tedd di daaray kaamil ci ndimbal ak càkkutéef ak taxawoog ñi nga xam ne ni ñoo koy saytu nag di ñaan nag daje ci ak ngërëmal sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wat-tafahhumi wa maskana al-irshadi